yow yow ñu ngi if ak waa Hann TV ñu ngi if ak yàgg yi ko yaay yeet yow ngoos ma meen ma soppi la booy boolel la ci nag yi wax nga nu mu fa demee yow për xër saxaar xël saxaar dañuy rap bën baari pandar cagati agali waari për ngir ñu jagati dañuy rap xaar koo xeexal mbedd défendre cause yi jusqu'à la mort dañuy rap di fak mbalax man def safara seen kaw tojee def seen man dañuy rap jibal coow duñu baa dund gi yëpp dañuy rap pour ghetto bi suñu kell lañu këpp coolu doo bi rap di tag ramu système bi lu mu sacrifier su ñun suñuy rak tax ñu ndiibal leen tem bi dañuy rap ngir ñu dëkkee xeex bañ ñu mos mosul a nangu xetu pression ci leen boot rab ngir ñu maawul gelte ñu gent lëndëm ñu gelte fu ngeen tuub la woon yaa di nekk ngay mekk maa ngi jokkal seen daf géro fii ba aan booy TV beneen xeeti dàkk lay jox bon maa bon yi la dindi wax ko mu demee maa ngi cene ci kanamu benn bassin boo ma koosee booy damay kase sayrin li mooy wari ko style benn yëre bu xonk coy xolo aay si booy du lu weex dafa xonk coy coy every fucking day ngi ci wagam loy loy dox sa kaw romb la di wëy mbedd bee ma xooj daat ma jaar fenn muy géej fu ma raj yi fa trans ah. never ever doo ko fomp li may teet romb na say daaju pont bu yoon naa la xaay teet ma mbedd bee ma xont bi Cees nigga doo ma gis sa géew never ever permit yaa yee yow ñaani la ñu jàll si jàll si ñu mooti jël si yóbbu leen beneen galaxie alaxie ëllëg si guddi gi wagadugu ba Kédougou bu ciy dugg ñu onji lo ñu son ñu xofloo loxloo ñu ne ci hospice tëddee ci showbiz showbiz ñi tëdd taw a ñi gëdd gën a wóog ni xiif ak mar di daaj yi ni amul yaay ak ni xar ba mujj xat di jàpp-jàpp taw a taay yi yaay ak baay yi gor ñeeg jam ñi ñu ne jam-jam yi tam-tam yi rang-rang di gëm di sàkk mi ni dëm ak kaska ni moto kaska mi ni deew ak kaska mi man yi dañuy raab ndaa fépp jàpp lépp kaay jàpp ràmbkat sàmmkat ci baykat nappkat sàmmkat te wér na wër na mi dara tawul për për fu dara newul bu dara desul lu dul ña di big teg eh, tu biit lek bif bif teg sulli mbër tulli toj jëlee fi njàkkaree ba léegi fi puukaree ba nuy xale ba léegi nuy xare mm. indi rim dindi krim yàq yàq mbind bi gàkk gàkk tund bi ñàkk ñàkk tund bi raab dëggal sa family man yee an tv wërëb ñun la fukkeen kuk yee ñun la fukkeen kuk ñun la ñun la fukkeen kuk yow <laughs>